asalaamaaleykum mbokk yi ñu tàmm di ñu dox seen site internet mourides point info ñu dellu si waat di leen présenté seen émission yeewu yeewu tey ñu feggoog Serigne Cheikh Abdoulaye benn Fatma mi nga xam ne moo jiite commission communication bi nga xam ne ñoo jëm ci féete ci wàllum organiser Magal Touba te Serigne Cheikh Bass Abdou Khadre kon duñ def lu jox Serigne bi ñu nuyoo. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mboolem mbokk yi ñu seetaan di leen euh, jaajëfal. di leen masawu coono di leen baalu àq di baal ñëpp àq di leen nga xam ne yéen ñëw ngir di sàkku yenn leeral yi ci jëm ci wàllu commission bi nga xam ne moom la jiite ci màggal Tuubaa gi. jërëjëf Serigne Cheikh ginnaaw nuyoo bi dañuy dugg ci waxtaan bi suñu laaj bu njëkk mooy gisaat nañ ne ren teel nañoo dugg ci lu jëm ci communication bi ñu bëggoon a xam lan moo waral sabab boobu. waaw xam nga màggal gi euh, mën na juróomi at léegi ginnaaw bu ko sëriñ Bachir yore ba tey at mu nekk rek dañuy yokk di gën yaatal loolu lépp na li ñu ci jublu moo di nit gën a xam rek lan mooy day màggal Touba ak nit ñi gën a xam li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne commission bi ñu koy def ñu ñu góor góorgóorlu ba fépp foo xam ne bi nekk na fa fépp foo xam ne jullit nekk na fa fépp foo xamante ne bii rek euh, ku màggal gi war a soxal nekk na fa ñuy fexe ba nga ci jot Euh, ndax dañoo seetlu ne màggal gi buñ ci àggee dafay xat warte fii day euh, day bari mbooloo mi jaxasoo beek yu mel noonu ba yenn nit ñi duñ mën a teewlu na mu waree yenn waxtaan yi moo tax nag dañ ko jiital ngir mm, message bi gën a mën a jàll ndax loolu mooy objectif yi objectif moo di lan gën a leeral li nga xam ne mooy njàngalem Serigne Touba fexe ba aussi nit ñi fépp fu nit nekk ci àdduna moo xam murit nga moo xam doo murit waaye nga yëg ne magal tubaab mu am na kon loolu moo tax ñu koy gën di teele ngir di ci gën ni mën a baaxe bokk yëpp jërëjëf sëriñ bi seetlu nañ ne tamit ren ñuy ngi waaj li ñuy wax conférence internationale bu Gabon ñu bëggoon a xam lan mooy objectif yi nga xam ne moom la ñu xaar ci conférence bu am solo boobu waaw xam nga Gabon mën nañ ne bu ñu wax magal Tuubaa kenn mënut a ñàkk tudd Gabon mhm. te gis ngeen ne dem nañ ci réew yu bari lu mat juróomi réew dem nañ france italie danemark canada amérique espagne bi réew yëpp dem nañ fa te sax ñoro ñu jité jiite la ñoro ñu jital kon foog naa ne bu ñu déggee gabon ren ji loolu lu yàlla lu jaag la lu war la loolu moo tax ren ji ngi dem gabon euh, def fa conférence waxtaan bokk taal bi fa nekk waxtaan aussi ñu dëkk ci réew mu te ay murit ndax bari nañu fa wante itam dem siyaare ji barab boobu bépp barab bu Sëriñ Tuubaa tegoon tànkam bu soobee yàlla fas nañu faa yéene dem muy Lambaréné muy Libreville muy Cap Lopez muy Mayombe fu ci nekk danañ fa dem moo tax lépp une semaine lay jël fu ñu fa demee itam am na ay waxtaan yu fay def waxtaan yi dañ koy def ci wolof def ko ci langue réew mu di français ngir ñëpp man cee man cee jot kon Gabon ji moom loolu lañ bëgg liñ bëgg daal mooy dem siyaare dem itam taskatu xabaar yu bari la ñu yóbbu. ñooy itam bu ñu nee ñu jël fa loolu ba ngi des fii ci réew mi xam fa suñ ne woon. ndax munoo xam njàmbaar ñu te demoo Gabon. ndax ba tey jii fu mel ne Mayombe fu mel ne Cap Lopez ba tey pour nga dem fa rek ay jafe-jafe yu mag la. nga nag xalaat suñ tubaab ba mu fay dem ca jamono jooju lan la waroon daj. kon loolu dafay am solo ñu xamal ko nit ñi euh, ba moo tax Gabon gi incha allah étape bu am solo la euh, ba tax ñu ngi koy waajal bu baax a baax. kon euh, sëriñ bi bu ñu déggee ci euh, leeral yooyu ñoo ñu leeral ndax mën nañu dikkal innovation yi nga xam ne mooy ci plan communication bu màggal Touba 2015. waaw xam nga communication bi chaque année rek dañuy euh, dañuy dañuy def ay innovation ndax communication mel noonu bu ñu ko doon wax ci marketing day nekk produit. produit nag day am day am durée de vie moo tax fa at mu nekk dafay dafay baax. ñu indi lu bees loo xamante ne bii eh, nit ñi danañ ko yàkkamti danañ ko yàkkaliku eh, danañ ko danañ ko xaar eh, loolu gàmmu gi ci la bokk ndax xam nga mosuñoo def fenn une semaine te ren dañuy def semaine Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon ji ci la bokk Dakar benn jour lañ fa def gën ngaa bari ñaan ñetti fan ren une semaine lañ fay def ba pare dañ koy décentraliser ñu ngi daan yem Méridien ak Masalik ren danañu dem Guédiawaye dem Pikine dem Rufisque am ci journée boo xam ne sax dañ koy jox étudiants yi ak beneen boo xam ne sax dañ koy jagleel Soxna Jaara Buso kon yooyu yëpp ay innovation yu am yu am am am am solo la guddi taskati xabaar yi ngeen naan def di di leen ci berndeel daawul am waxtaan ren day am diine débat lañ koy def nga dañuy woo taskati xabaar yu mag ànd ak aussi ay borom xam-xam diine yu mag ñu dikk toog waxtaan xool lan mooy communication éthique ak responsabilité te loolu bu ñu ko déggee bu ñu jàpp ne taskati xabaar dong ñoo ko moom waaye même ñun ñu koy jëfandikoo sax ci la ñu bokk. kon yooyu yëpp rek ay ay waxtaan la ngir di yaatal ngir tasaare ay xam-xam ngir nit ñi gën a gën a yee nit ñu gën a xam ngir kenn ku nekk war a xam lan mooy sa taxawaay euh, ci biir euh, société bi ba li nga xamante ne bi ñun ñoo ko seq euh, foog naa ne lépp ñu ñu gën koo mën a rafetal loolu nag day ànd ak programme yi ñu daan def naka jekk.

ñu gis ne yoonu murid yenn saa day jafe-jafe bu information génnee duñ mën a xam fan lañu ñu mën a sukkandiku pour vérifier loolu ndax jotut ñu am suñu plateforme de communication bopp bu nga xam ne bu dara jibe talibé bi dina ko mën a daw xooli ko pour xam ba xam ndax lu wér la wala lu wér si loolu loolu loolu war la mais loolu ñun ñëpp am nañ ci responsabilité eh, parce que boo dee xool ñi site yi yëngu ci wàllu murid buñ buñ gën a parce que ci la gën a bare dafa bari te ñoom ñëpp day mel ne duñu duñu ànd jëm ci benn barab kon li baaxoon mooy ñoom ñëpp ñu xam ne kat euh, lii ñoom ñëpp ay taalibe lañu te liggéey Sëriñ Tuubaa la ñu bëgg euh, kon loolu buñ ci bàyyoon xel rek euh, gën a gën a gën a yokk seenu jaxasoo gën a mën a boole seen activité di gën a yombal ndax loolu aussi ñun ñun ñun ñi am lenn ci li ñuy ci xibaar yi ñuy war a war a jàllale daf ñu yombal suñu liggéey comme gabon gi ni ngeen def rafet na lu mat fukk fukki set ak ñaar ñëw àndandoo booloo nekk benn daal ne kat ñun dañu tànn ñaari nit rek ci ñun ñu dem ñooñu bu ñu demee nekkal fa ñëpp loolu rafet la kon duñ leen encouragé ngeen continuer ci voie boobu te gën koo yaatal fexe ba mbooleem site murid ngeen ngeen lëkkale leen su ko defee ñun bu ñu jàllee xabaar dafa yomb kii du jaar fii kii jaar fii kii jaar fii parce que loolu day yàq. Euh, bëggoon nañu xam ban taxawaay nga bëggee la presse locale bi nga xam ne moo nekk ci gox Touba bi taxawee ko ci màggal Je je vous sens d'abord. Parce que vraiment, la presse locale est très Parce que nous, nous sommes quand même, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux.

kon même avant ñu nekk ganu comité bi sax seen gan lañ doon parce que si seen nattango lañ doon. kon loolu aussi ñu di leen tàllaloo loxo ngir ngeen jàpp ci jàpp lañu ci encadrement bi ci jàll information parce que yéen fi nekk yéen a gën a xam dëkk bi. kon nga xam daal fi ñoo ko seq. Euh, avant kenn di nekk ci benn organisation lañu xam ne ñëpp ay taalibi Serigne Touba la ñu. kon nag nañu jëf jëfi taalibi bu ñu ko defee rek sëñ bi li mu bëgg dana ko am. jërëjëf comme sa dernier waaw dernier mot moo di di euh, di sant ki nga xam ne moo di xalifa général des mourides Cheikh ndax li lépp moom moo ko sabab di sant itam nga xam ne moo di Serigne Bassirou di président comité bi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu ci dugal. kon loolu parce que ku la wone kay liggéeyal Serigne Touba amoo euh, ak payam. Euh, di di fedli sunu laxasaay ak sunu engagement ak mboolem ñuy seqal comité bi ci ci ci taxaw bisub Sëriñ Tuubaa bi nga xamante ne bii amuñu lu dul moom di di di nag woo mboole mbokki taalibe yi woo mboole mbokki jullit yi ngir ñu ànd waajal màggal gi ci anam gi gën a rafet ci ne ko sëriñ bi bëgg ak ci ak jàmm génn ci ak jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala la barakatuh jërëjëf Serigne Cheikh Abdou Lahab Mbacké président commission communication bu comité d'organisation Magal Touba l' équipe de Mouride Info ñi lay jaajëfal kon mbokk ñu doon top ci seen site internet Mouride Info ñu ngi leen jox dig dajé ba benen yoon.